oustaz vas yi nuyool ñu tàmbali jërëjëf maa ngi lay nuyu. Pape da ngay woo rek. sama xarit. El hmm. Hadj Macky Sall. lu fi indi turam. <laughs> non damay laaj. yàlla may ko gudd fan. amiin. fexe na ba réew mi suqaliku. yow dëkk bu metti bi ni nga ni dafa suqaliku. xam nga terre bi mënu defal. Hmm. ñun ño wara nité nite xam lim ñu defal. yow commencé nga politique légui non Pape bàyyi ko rek man de lima ma leer mooy ay posom mom suqaliku na waye man Sénégal gi ma nekk di fi yeewoo santiruma suqaliku de. am <laughs> kay ku ci magi Sall may xaliss wala mu recevoir la wala mu jox la rek numéro nga def ko maire président mom may leen ñu jamm nak waaw kay waxuma ak yow nak dama bindu sama lettre sanni ko Faria mom Euh, fii nag du midi plus 19 heures plus la li ma neex ngay wax ay waxam andiwu la fi. est-ce que xam nga ni képp ku nit ñi di wax ci yaw te li ñuy wax ci yow baaxul. yawmal qiyaam seeni julli la yàlla di jël di la ko jox. bu fekkee li muy def bañ ko koy waxal baaxul nag <laughs> ah Pape li ma ko laaj leerul. barki borom Tuuba. li nga yor ci ay julli jàmbur ak koori jàmbur kenn xamul nu mu toll. man. waaw loo ci xam. <laughs> ay julli jambour ak ay koori jambour nga ni may borom lepp yaay borom ah kon da yomal xiyam suma nexe fuy mais da nga wara fuy ah kay fuy fuy la yalla de sa wax ji de bu mako topé ba dem ci karamu yalla dan damay fuy fuy la bañ teumal ma jël na ma xalaatu ko pap wala sa ki moom mooy dugal de yow nenañ nañu yow da nga yak diiné ji oustaz changé na lu bari lan loolu lu nga yak diiné ji yow nga joggé Italie yow lañ wax mag nek modou mag yow buñu ci gërëm <laughs> ci génné sa bop mag yow lo ci yak de na ko defaraat diiné ji mom kenn du ko moderniser mag yow loolu de bu dee noonu la demee moom damay dool di sant yàlla. man boo gisee zéro stress. nëbba mayel yow mi lu ñu dégg rek yonent bi déggoon na lu ko ëpp. dëgg la yonent bi tuddee nañ ko dof. Mhm. tuddee nañ ko njabarkat. Mhm. tuddee nañ ko ko xelam matul. Mhm. tur wu ñaaw wu ne tuddee nañ ko yonent bi pour déstabiliser ko. dañoo xamul ni yàllaa koy stabiliser. ñaar dana tax gor di xas gor. muy ban. dépense bu matul ak ay problème. déet waay ñi ngay gis ñuy xasaate ñëpp pap dañoo sonn am ay problème non mais pourtant am na ñu am problème dépense ak yeneen problème te xase wuñu de wallaay mais nag bon am problème moom weesuwul toog di xaste gis koo xam ni ñoo ko mag wala ñoo ko ëpp xam-xam wala ñoo ko ëpp lépp di mos te mënuñoo mos. xanaa amul ay saar yuy saafara problème yooyu. bu dee am na sax mokkal ko day jafe ci ñoom. soxor nit ak nit da koy judduwaale. mais am na ñu soxor te judduwaale wuñ ko. waaw del préciser. <laughs> ah am na ñoo xam ne fii ci dunya leen dabee di ah nit du juddu rek du du juddu rek bon. non am na liir yoo xam ne moom dañuy génne rek nga xam ne ñii soxor lañu indaale <laughs> yow mosoo gis liir bu génn rek def nii ma. <laughs> non laajal sage-femme yi non am na ñu koy judduwaale. am na noo xam ne soxor gi ne ci ñoom ilaa yawmi diin du deñ. bu ñu àggee ilaa yawmi diin dina leen ko te cher rek. yawmal qiyaam da ngay dekk yàlla ne la Pape Cheikh Diallo kaay nga ñëw. mu ne ana diw nga ni maa ngi nii mu ne kaay yow ca àdduna ya don yàq deru pap Cheikh Diallo nan pap Cheikh Diallo nangam ak nangam te musu ci tek sa beut lola foko tek mais boko ne yalla yàlla dafa yag fatena naa da lay baal. muy yow bu da am ñoo togn ba ngay gune demal nga len ti yalla ken du fatte ci kanamam pap yalla genre day mel film. <laughs> bu dee film la tamit day ya ngay jouer da xamna ni yaay don acteur principal bi sa bakkan beeg sa loxo ak sa nopi ak leppay nek en action tout. motax nit dana am montagne yu yiw yowmal qiyam yalla jël yi yëpp jox pap Cheikh Diallo. ndax la fayé la ko. pourquoi ñi la doon togn baal leen maaq de baal leen maaq de képp koo xam la rek ma ngi lay jégalu dem ba fofu di joxe li ma yor moom du ko man <laughs> kuma jox nak ma jël. yowmal qiyam ni tiyaba jafé di nga dekk ci kanamu yalla ñu war la jox tiyaba nga nan bal nako don doon iblis sama ko gënal. luma way waxal nañ bayyi ba ëlëk duma tontu kenn ci aduna mosoo tontu kenn. non non. ba nga dee yow ba léegi mosoo tontu kenn kuy wax ci yow. déedéet. ok <laughs> Pape lan la. ko Oustaz mosul tontu kenn nga de. aw ma jot. ok damaa waye dee noonu. lu ma ci xam. man aw ma temps. Oustaz maa ngi yow fi réew mi toll amuñu jot danoo xew. yaag Pape wala yaag man. <laughs> non damay laaj. suñ borom mënu xewal ñu nekk ci xolu nit ñi. ndeysaan. nit ñi bëgguñu di ñu bàyyi xel. ndeysaan émission bii day gën a yéeg. Mm-hmm. di gën a neex. Mm-hmm. di gën a suukaru. di gën a saf <laughs> di gën a sàppaaral. ay man oustaz bi. mooy oustaz oustaz 2.0. <laughs> yow. non yàlla mooy sàkk modèle bu ne. mbaa xam nga ni firaaw na. 40 jours ba 40 jours benn yoon la daan dem toilette. Eh. pour lan la loolu. xanaa daawul ñàmbale moom it firaw na. na rafet waay. non je veux doomu aadama doomu aadama la yàlla da laa sàkk nga naturel da ngay am ay kii. ay urgence. oustaz yow man man man bi ma la xamee la sama diine compliqué.

firaaw na lal bi mu daan tëdd sax pour mu tëdd ci day war gileem gileem gi dox ak moom ba ci lal bi wëlbatiku mu doog a tëdd. <laughs> amal complexe yi tuuti. firaaw na nag ris na de ñun ñëpp yooyu la ñuy ñaan ay firaaw na mi. 40 la daan dem toilette lu tax. ak lan la daan lekk. dafa pouvoir bu ko yàlla dénk. pouvoir donc. je sais pas daan na tilim daan na ñambale. xam nga am na ñoo xam ne tey 16 anglais yi ñuy toog sax. Mm. bokkul ak 16 anglais yi nit ordinaire yi di toog. am na ñoo xam ni or la ñu defaree seen. mi ngi noonu am na ñoo xam ne seen pouvoir day àgg foofu. Mm. moom yàlla daf koo mayoon. xam nga nu may def bàyyi ma fekki euh, Faty Dieng ci beneen plateau bi <laughs> bu ko defee mu junjuñu en attendant journalu 13h bi maam Faty. eh fii du midi plus. wóoloo ma la fi kenn.

fi muy sosoo. war ta soso ci mer. waaye jur ya koy séq waru ñoo mer. looloo tax nga war a dégager mer. ah man de jamono jii façon nit yi may gis defe naa bañ leen doon liggéey dañ doon xeex. mais mer nag mënul ñàkk ba nag làmmiñ ñoo dëkk. ah bah oui ñoo dëkk de xanaa buñ laalee ñu bàyyi ba mu sedd. xam nga ñu bari dañu jàpp ni say plaisir la déedéet xoolal plaisir bi wis la ci wis. Hmm, jamono bii de. jaamu yàlla bi moo ci wis. mais jaamu yàlla la comme ni julli nekkee jaamu yàlla. jaamu yàlla bu neex kay. soo koy def dañ lay bindal tuyaaba est-ce que xam nga loolu. lii de mooy tuyaaba dëkkul fenn. maanaam bu ngeen ko sekkee da ngay am ay. booy sëy dañ lay bindal tuyaaba malaaka yi dañuy bind jamono bi ngay sëy di la bindal yiw. muy neex ñuy bind. bu dagan bu dagan bi. loolu kay wax jaaxu la. mais yàlla nag moo baax. Hmm. may la plaisir ba pare ne la plaisir bi di nga ci am yool. tuyaaba. di am bànneex ci sa soxna malaaka yi di la bindal yiw. macha allah. ko yàlla kay dafa fuyal marié yi rek. di rek. am nga tiyaaba am nga tiyaaba nga nekk ci ñuy bind rek. nga nekk ci ñuy bind rek. attention. nga nekk ci malaaka yi di bind rek. bëgg ay yiw de bu mu tax nga koy wut suba ak ngoon. <laughs> ah baax na. ñu bëgg balaa ngeen di sëy yéen ñaar. Mhm. su ngeen mënee sangu ngeen sangu. sangoondoo oustaz man damay poser ay question dama bëgg a comprendre. booy sëyeeg sa soxna jamono bi nga bëggee commencé rek ci saase. neel allahumma jannibnii wa jannibi shaytaan mais yenn saa nga jànnaxe ba doo mën a wax yooyu de oustaz gis nga xel. xanaa yàlla joxe na jurisprudence ci loolu. et puis dafa gudd yow bii nga wax. <laughs> gudd na trop ci ko yàkkamti. c'est diggante bi nga koy wax mais Pape ñaan bi yemul ah, bu desati kon. loolu ah. booy tàmbali la. mais boo demee ba yëg sa bopp affaire bi di génn da ngay ñaanaat foofu. <laughs> ay Modou Fall mi ay Modou Fall fan lañ ko jëlé euh, lool dafa logique sax nek a may. sar woowu soko ko tari bala ngay sutal do joom dëgg yàlla sëy yi pap dañ ci bari yuñ ci duggal xam nga buñ démé bay tal lampe ñi di wut ay karawas. ñi di manoté seeni jëkkër. yow li nok xamé xaa dañ lay manoté <laughs> jarna naa laaj de. yow da nga xam lool foko wara xamé dafa ki nga manote bayam <laughs> <laughs> <laughs> bon euh, gars je vais vous présenter Kasumay Renovation une euh, agence de nettoyage nettoyer studio appartement bureau ay vitres fenêtres murs.